te loolu lépp seen loxo jaar mais également wax leen ni le gouvernement dina continuer nekk seen wet te kiy njëkk ci loolu mooy le président de la république président de la république su ngeen seetloo daaw première loi bi ñu voté ci 2020 bi te la loi 2020 donc 0 0 0 01 01 du 6 janvier 2020 nga xam ne première loi bi assemblée nationale voté mu jëmale ko ci start bi le numérique dafa nekk ci xolu économie àdduna bi kenn mënatu ko passé

joxante loxo que suñuy doole gën a secteur économique. xam président de la république dafa gëm économie numérique dafa daf ci daf ci daf ci investir lu am solo tey suñu investissement yi président de la république def mun naa ni mot milliards. soo gisee euh, mu ngi pour doter le Sénégal ay infrastructure numériques modernes de dernière génération. li ci mujj mooy inauguration data center bi donc tout dernièrement le 22 juin passé à Diamniadio ñu ngi liggéey également pour euh, doter l'écosystème bi benn plateforme numérique moderne de classe mondiale le PTN qui nga 46 milliards la ci def pour aussi amener un data center bu ñuy également ñu data center c'est pour dire simplement nous avons mis président de la République euh, nous avons numérique bi mu ngi loxo di investissements structurants gis fibre optique sur les km, kilomètres Sénégal moom moins 5000 kilomètres Le que Sénégal pour le numérique investir pour que les infrastructures publiques soient également des infrastructures de qualité loolu su amé nak donc dañ koy partager ak sénégalais yi wax leen ni jeunes yi surtout que loolu yépp dañ ko mettre à leur disposition